والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين الذي أدى الأمانة خير أداء وبلغ رسالة أحسن تبليغ وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واسترشد برشده إلى يوم الدين mbokki jullit yi soppe yi xarit yi Prestige TV ñi nga xam ni fa tabarakallahu dañuy topp saa yi su ne ñu ngi ñëw di leen nuyu di mu gën a tedde di leen ziyaara di ñaan yàlla yàlla yàlla boo leen nangul ziyaar ci barke sayduna muhammad tey nag mën naa ni du gan ci biir kër gi sax gan la du gan ndax miin na kër gi dalal nañ ko fi di ko fi muy suñu mbokk daara di suñu xarit di suñu soppe waaye di doomu soxna muy oustaz xaali gay doyoon rekk ci doomu xalifa gay baayam fa tabaarakallaahu bokkoon ci keno diine yi liggéeyal diine ba tey héritage am ñépp xam nañ ko ci àdduna bi tey moom lañ fi dalal fa yéene waxtaan ak moom ci wàllu taxawun oustaz xaali ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy suivre alhamdulilahi rabbil alamin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وطب قلوبنا ودوائه محمد صلى الله عليه وسلم mbokki àdduna mbokki téléspectateur u Prestige TV ñu ngi leen di nuyu ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatulah. jiital nuyu bi fa tabaarakallaahu ci suñu mbokk. suñu xarit suñu soppe. bii nga xamante ni moo ñu dalal. ci plateau Prestige TV. bi mhm. Seydina Ousmane Mbaye mhm. fa tabaarakallaahu nuyu kilifa kër gi. Mhm. waaye nuyu mbooleem ñi nga xam ni ñi ngi yëngu ci kër gi. ak mbooleem bu doomu aadama ñoom de suivre. émission bii nga xam ne moom la ñu fas yéene def bismillah oustaz. macha allahu taala oustaz ñu kontaan ci sa teewaay tey dañ lay jaale ñu lay xam li nga xam ni bokk nañ ko fa tabaarakallaahu muy soxna Tafsir Abdourahmane Gaye bi génn àdduna waa prestige yëpp ñuy bokk di la ko jaale. Euh, ñu kontaan bu baax nag tey nag ñu dalal la fas yéene bokk ak yow waxtaan bi nga xam ni dafa jëm ci wàllu taxawun suñ nee taxawun euh, mooy ndimbalante. oustaz tey boo ñu doon faram fàcceel wàllu taxawun ak nu ko sharia gisee ndimbal nan nga ñu koy faram fàccele oustaz jërëjëf mbay dafa fekk ni ki koy laaj mhm. est que gënu koo xam ki mu koy laaj mhm. waaye nag da di aada mhm. ci jotaay yu ni mel boroom xam-xam bu baax bu mel ni yow bëgg yaatal tax léeg-léeg mu daje ak mbokkum daaraam ci jotaay bu ni mel laaj ko lu ni mel waaye bu ma la bëggee tontu oustaz ci attaawun sama xel dafay daj alquranul karim cent quatorze saar 6666 aaya amul en tout cas dëgg la borom bi subhanahu wa taala baada aoudu billahi min alcheytani rajim wax ni wa taawanu ala albirri wa taqwa wala ta wala taawanu ala alismi wal udwan wattaqu llaha inna allaha shadidul iqab gis nga jullit dafa am paramètre boo xamante ni waru ko génn dëgg la lu la neex def lu la neex wax te doo xam li ngay def wala li ngay wax lan la ci sa borom wax ak lan la ci sallallahu alayhi wa sallam wax muy alquran muy hadith wàcc ba ci ijma julit référence am alquran la war a doon dëgg la waxuma wax sa xalaat aduna bi ñuy dund oustaz fi jamono toll ñu tuddee ko mondialisation. Mm-hmm. lépp lu indi rek nit dina ci indi xalaat. est-ce que xalaat diine nangoo ko. diine nangu na xalaat oustaz. Uh-huh. waaye diine ki koy dund dafa am fu ko tënk. dëgg la. ab jullit. Uh-huh. doonul koo xam ne dañu ko boyal. Uh-huh. misaal mi gàtt na. xar mi nga xam ni dafa am borom. ñu tënk ko. est-ce que ak xar mi ñu boyal mu nekk ci mbedd mi kenn xamul borom benn lañ. bokkuñ looloo tax ñu tudde kii xaru yar. Mm-hmm. kenn ki ñu tudde ko ñu baal ma ci waxin wi pël-pël. dëgg la. Mm-hmm. waaye pour ñu comprendre. Mm-hmm. mooy kii dañu ko yar. boo leen indee ci marché bi ñoom ñaar bëgg leen a jaay. kii dafay am njëkk lu ëpp li kii am ngir la kii dañu ko yar yemale ko kii nag yaruñu ko dañ ko bàyyi fu mu neex dem. dëgg la ab jullit nag. bu ko doon misaal dañu naan ku ñu yar jox ko référence ci kenn te muy sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox ay uti sallallahu alayhi wa sallam ngir mu jox ñu ko ñu mën di ci référé wu outil yi borom bi jox subhanahu wa taala ci dimbalante du ma ci cité mooy li yàlla wax sallallahu alayhi wa sallam ni ko waxal sa gaañi kenn génnul wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas mhm. kenn génn mhm. ni ko dañuy dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla mhm. oustaz dëgg la dimbalante nag dafa vaste dafa yaatu nga baal na léeg ci baatu tubaab bi may dugal waaye xam nga ni nit yi bi ñu nekk moo ñu ko yóbbee ne sax ñun ay ndongal daara lañ te moo ko ñu dañu mën a nekk dëgg la dëgg la dëgg la dimbalante fi jamono toll tembe uh-huh. boo ci bëggee wax uh-huh. da koy contextualiser ak lan ak mbas mi fi ne dëgg la maanaam ndimbalante tey lañ tey la gën a mën tey lañ ko war a gën a mën a def parce que dafa tombeek jamonoy Covid mais oustaz oustaz ñaata ci ay borom kër uh-huh. ñaata ci ay responsable ñaata ci ñoo xam ne seeni nawle ñoom la yaakaar ñoo ñàkk seen liggéey ngir mbas mi que kon bu ñu dellu woon ca la ñu alquran waxoon démb sallallahu alayhi wa sallam wax lu ko démb tënku ci dimbalante dama ni kon njàmbat ni du ñu toll njàmbat li ci réew mi yépp ubbil rajo yi ubbil télévisé yi ubbil ubbil réseaux sociaux yi mbooloo mu nekk ña ngi jàmbat à travers le président jëm ci président de la république. <laughs> di wax ni ñun nangam kat dañ ñu war a dimbali. ndax kat bas mi yóbbee nañu nangam ak nangam ak nangam mais est-ce dañu waroon a xaar ba ñooñu di génn di laaj ndimbal ngir ñu soog leen a dimbali. Ah, dimbali sa bopp d'abord. dañoo waroon a dimbali dañ leen waroon a dimbali lu jiitu ñoom ñuy sàkku ndimbal. Mhm. te pour ñu dimbali leen nag. Mhm. mooy ñu sàmmante. li nga xamante ni moom la alquran wax te moom la xadis wax mm-hmm. oustaz mm-hmm. alquran mm-hmm. wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan dankan gis nga ko ni ab jullit nga def ko muy loo xam ni moom ngay référé woo xamal ni la aaya ya wax mooy dal ci sa mooy da ngay doon xam ne ku kàccoor nga da ngay doon yéefar da ngay doon koo xamante ni daal. comme ni ko ni ko ni ko ayatul quran yi waxee. boo ma ci boo ma ci tanee. wa moom wa man a'rada an dikri. fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawma al-qiyamah waxuma sax laaya jooju am na beneen wa man lam yahkum. bima anzala Allah fa ulaa'ika humu zaalimuun faasiquun kaafiruun. mais sax dëgguma la mais xam nga foofu actuellement tey boo xoolee adduna bi yonent bi dañu woon état dinañ dem ba diine. day ber tànkam àdduna ber tànkam dem te boobaa bu ñëwee na ngeen jël taxawaayu diine ànd ak moom te moytu àdduna te xool actuellement ni mën naa ni àdduna bi ni mu domine diine dafa ëpp est-ce que oustaz ñun ñi nga xam ni tey tabaarakallah ñoo nekk ci yoon bi waruñoo mën a yokkaat suñu dawru suñu rôle bu baax a baax a baax a baax ba cànkute gi nga xam ak réer gi nga xam ne moom moo am ba kenn atteetul sharia waruñ koo mën a yokk bu bëggee dégg-dëgg li ëpp ci li ñu dal ñun moom musulman damay wax ni ñoo ko yóbbu suñu bopp ndax ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk ca bopp ci naka gis nga ñii nga xamante ni ñoo monopoliser monde entier di doxal seen programme ñi ngi tuumaalante kenn ku ne naan yow yaa waral virus bi kii naan yaa waral virus bi virus bi fu mu jógee oustaz par rapport ak li ñu dégg ci média yi mooy dafa mel ni ki ay réew kenn ku ne di wan sa moroom dooleem moo waral ñuy utiliser fa tabaarakallaahu mbir yoo xamante ni moo sabab am leen ci ah. ah. ci li nga xamante ni moom lañ doon sowe ci lan ci kenn ku ne di wan sa moroom ni man maay puissance bi gën a kawe ci monde xaj ah. ba am lu leen ci rëcc bu mu leen rëccee nag oustaz yaakaaroon nañ ni mën nañ ko canaliser. waaye yàlla tàbbal ci loxoom ni leen. yéen ñiy xëccoo puissance mondiale. kenn nekk ko ci man borom subhanahu wa taala mooy puissance mondiale. fa tabaarakallahu oustaz ñu ngi kontaan ci muqaddima bi xam naa fi nga laal laay ñëw tootu comme dañuy dimbalante te virus bu ñëwee dañoo war a dimbalante ci suñu doole. ci suñu xalaat. ci suñu xam-xam. ci suñu poche. parce que ndimbal wax nga léegi dafa yaatu. oustaz. est-ce que amul ci saxaaba yi wala Seydina Muhammad koo xam ne bi mu tombeek jamonoy mbas indi na ndimbal loo xam ne aar na leen ba mbas ma jóge fa est-ce que amul kenn koo xam ni mën nga ñu ci misaal ban façon ndimbal la tegoon muy yonent bi wala muy saxaaba boo xam ni bi mu dundee ak mbas mi da ko da ko dafa résoudre problème bi gis nga Oustaz waxoon nañ ko ci barab bii mhm. dañuy dellu di ko waxaat mat mhm. na yàlla yàlla jële fi mbas mi waaye Cheikh Sidi Aboubacar Sy Mansour di xalifa général des Tidianes taxawaay bi mu taxaw ci xew-xew bii di mbas mi dafa jëlee la sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko ngir dimbali boppam waaye dimbali Sénégal gépp ndax fi lay dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci jamono ne bu mbas tàbbee ci mbir mhm. ku fa nekk mhm. bul génn ku fa dugg nit bul fa dem mhm. ñoo sax gis nga ni bi mbas mi dooree loolu la réew yëpp def xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi jëfandikoo tëj aéroport yi mais bi demee ba ci biir xam ni lii lu fiy toog la te nag ci àdduna la ñu ne dañu war a dund ci la ñu sàkki ubbiwaat réew wi mhm. waye boole ko ak ay mesures barrières. Mhm. ci mesures barrière yooyu. Mhm. ci la Cheikh Boubacar Sy Mansour. sukkandiku yàlla yàlla yokk leeram guddal fanam. ci la sukkandiku ba position bi mu nekk oustaz wu ci ngir nag dimbali jullit ci léegi ñuy jël beneen chance bi nag. oustaz xam nga lan moo am solo ci jullit. loo def la yàlla. dëgg la macha allah Cheikh Boubacar Sy Mansour. li mu def laa nii. man mii mën naa koo layal. te dama koy teg ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dëgg la. bu fekkente ne layaluñ ko ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax. dama ni jamono fi ne jox na ko dëgg. dëgg la jox na ko dëgg. ndax ci première vague la ñu nekkoon. mu am position bu mu taxawee. moom ci sëñ Bakar Si Mansour. jógu ca jógu ca jógu ca ba ñu baree bari daw. ci position boobu moom jógu ca ba yàlla dogal ñu ne deuxième vague. Sénégal gépp wëlbatiku en tant que kilifa diine ni dafa mel ni ki kat moom mooy lom da xam nga lu tax. Mm-hmm. mooy la nekkoon jugu ca. Mm-hmm. waaye li fi nekkoon jugu fi non seulement waaye mi ngi yokk. ba ci état du Sénégal xoolal mesures yi ñu doon jël. Mm-hmm. ca booba di bàyyi ndànk-ndànk. di bàyyi ndànk-ndànk ñoom ñi ngi jëlaat ay mesures yoo xamante ni dafay yokkaat lu mel ni ki lañ ñu tegoon ba ci couvre-feu bi ñuy dund tey. macha allahu taala oustaz kontaan nañu ci leeral yi baax a baax. waxoon na ko nag bu njëkk nee na woon nañu wax nit ñi dëgg. li fi nekk nañ ko wax nit ñi. fa tabaarakallaahu dafa mel ni suñu boroom daf ko wuyu. waaye oustaz ba tey dañuy desaat tuuti ci wàllu ndimbal li ma gis ni Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu tombee ak jamono mbas dafa jël ñaan teg. parce que dañ ne ma nazala balaaun illa bi zanbin wala illa bi tawbati yàlla du wàcce balaa lu dul bàkkaar li koy yëkkati muy tuub yonent bi mbas mi ba mu amee mu génne stratégie parce que mbas mi aw Bilal ibnu Rabah Amir ibnu Fuhayr fa tabarakallahu ba ci Aboubacar Siddiq waaye yonent bi ñaanam nga yàlla daf ko wuy dem na ba ne allahuma habib ilayna almadina ka xubbina màq aw ashad xubban wa barik lana fi saaina wa muddina ah fa tabarakallahu mu ni wa saxiha lana wanxul xumaaha ila aljoxfa yàlla wuyu ko ci lolu bo demé alaaji Maalik sax mu ngi koy wax amal waba min du'a al badri muntaqilun an al madinati nahwal juhfat al adim ñu gis ni comme yonenti bi mo utiliser stratégie bobu tay est-ce que Sénégal gi ñu nek ñu ngi utiliser stratégie bobu dimbalante ci walu ñaan xam nga sax adduaa silaaxul mu'min julit jullit ngànnaayam mooy ñaan te dimbalante dafa am place bu am doole ci lislaam buniya lislaam ala xams shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah benn iqaami salaa ñaar ñetteel ba itaay zaka dëgg la léegi azaka ban rôle lay joué bu passé dimbalante esprit dimbali ki nga tane. moo tax yàlla jël ko def ko muy troisième pilier. def ko muy ñetteelu ponk ci diine l'islam. dëgg la nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fa mu jaar ak saxaaba yi. ba yegg ci wax ak Baay Babacar. Mhm. ci lan feebar ba nga xam ne tàbbi woon na ci jamono. Mhm. ويلي أوب تلا بوري محمد صلى الله عليه وسلم تسكر دكتي موي نيان غرام سبحانه وتعالى ما تمنى لا جلد نيان موي غنا يم دا صلى الله عليه وسلم ما كوخ الدعاء وسلا المؤمن مين أساس بن دلين نيان بليك يعنى واي فيرو بان كون نيان كمان ده ده فهم بيت بارك خم خم بوخوني عرفتم الله تعالى ولم تطو حقه جسمي نوم jullit xam nañu dëgg dëgg kan mooy yàlla waaye joxuñu yàlla àqam dëgg la oustaz jullit du tapane jullit ci sept tit lay dox ñun xam nañu yàlla waaye joxuñu yàlla àqam gëm nañu ko waaye wóoluwuñu ko Serigne Cheikh di wax na lool muy benn ad'aytum xubba rasulillah Ibrahim ibnu Adham moo ko waxoon waa Basra ba ñu jaaxlee ci metti metti yi nga xam ni xat-xatu àdduna dab na leen mhm. benn yoon la daan génn ci at mi mhm. génn ñépp dab ko laaj ko li ñu nekk te yàlla ni ku ko ñaan may la ndax aduna ni astajib lakum mhm. ñu ngi ñaan yàlla yàlla mayuñu waa laajal ñu sa yow miy diiru moom ana lan moo tax ñu ngi koy ñaan te mayu dëgg la ba mu leen dee tontu lii ma la wax na leen wax ah. xam ngeen kan mooy yàlla waaye joxu leen yàlla du saas fii ku ma fi gis ci monde bi ñuy dund am nga beneen yàlla bu wuteeg borom bi subhaanahu wa taala moo tax yàlla waxoon ni ci hadiisul qudsi ni man nit jinne am nañu problème bu rëy bu ñu war a régler ëllëg yowmal qiyaam ndax axluqukum man yàlla maa leen bind wa yubadu xayri ñu jaamu keneen ku dul Mm-hmm. ku ne am nga. Mm-hmm. looy jaamu. Mm-hmm. lu bokkul ak borom bi subhanahu wa taala. dëgg li ëpp nag ci ñuy jaamu saa su jamono alal la ñuy jaam. wallaay dëgg la. loolu benn. dëgg la. ñaareel bi. borom wax ci xadisul wa arzuqukum man yàlla maa leen di wërsëgal. wa yushkiru xayri bu sant jotee ngeen sant keneen ku dul man li tax suñu ñaan yi nanguwul laa dëgg la Ibrahima ibn Adham wax ba tey ci li ma doon wax sànq ni addaaytum xubba rasulillah wa taraktum sunnatahu yéen a ngi woote yi da ngeen a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare bàyyi fi sunnaam appliqué wuñ ko maa bëgg maa bëgg gu àndul ak jëf amul njëriñ koo di fi soppoo yonent bi mu mer saas dëgg la koo di soppoo yonent bi mu mer waaye est-ce que fi sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam la teg tànkam. wallaay. koo ni fi sopp yeneen ci mu mel. waaye est-ce que la Seydil Xaaji Malik wax wa laysa nafun ala xubbin bila amalin wa taabian sunnatal muxtaari taxtanim est-ce que ñu ngi ci loolu ku sopp yeneen bi da ngay jëfi sunna Ibrahima Ibn Adham nee na bokk na ci li tax bu ñu ñaanee yàlla yàlla du nangu mooy ñun kat dañuy woote ni dañu bëgg yonente bi waaye topp mhm. mhm. naa ni. bu ñu bu ñu ci ñaar yi wax yi fukk la nag yoo xam ne Ibrahima Ibn Adham moom la wax. waaye bu ñu tënkuwoon ci ñaar yi kese dafa am bari luñ ci war a jàng. Mhm. ma dégg ci ñaar kitaabullahi wa sunnati. sallallahu alayhi wa sallam te ñaar yonente bi nee na sama héritage ñaar yooyu. mais ba muy dem loolu la dégg. in tamassaktum lan tadillu ba'di ma hmm. ngi dem de waaye bàyyi ngeen lan bàyyi hmm. naa leen ak ñaar bu ngeen ci jàppee bu ngeen sànku ba ëllëg te ko dajeeg ma doorus hmm. ban ak ban mu ne kitaab allah tire yàlla bii wa sunna ak sama sunna man sallallahu alayhi wa sallam ñun est ce ci téere yàlla bi la ñu jàpp oustaz macha allah oustaz est ce ma sha allah loolu mom war nañ ko xoolaat bu baax baax baax parce que yi nga wax ni yépp nekk na loo xam ni dafa commencé suux ma ñëw ci li nga wax ni nit ñi dañu am beneen yàlla bu ñuy jaam bu dul yàlla bi te effectivement loolu dafa am beneen type dafa waxoon ni jamono ngi ñëw yëti zamanu ala naas nit ñi butoonuhum alihatuhum seen biir yi ñoo nekk seen yàlla wa nisaahum qiblatahum jigéen ñi ñooy nekk seen xibla seen jubluwaay wa dunyaahum diinuhum àdduna mooy seen diine. Mhm. nga xool tey actuellement ñett yooyu. Mhm. mën naa ni tey boo doon xool àdduna yi gën a ëpp doole ñett yooyu dafa am doole. Mhm. oustaz tey ñu xool yi monopoliser àdduna. nga jël xaalis l'argent. jël la femme. jël l'homosexualité. jël lesbienne jël le bi. ñoom ñëpp attaqué diine. te ba léegi daanaguñ ko nag. te duñ ko daan ilaa ma gis ni ndimbal li ngay wax tey.

est-ce que ñun buñu installer nimbal dina jall parce que ñe dañuy reetaan est-ce que amul lo xamni manké na suñu biir ci walu nimbal diiné gi financement khalis bi khalaati fa tabarakallah yene sa morom jamm lolu est-ce que amul lo xamni dafa échec suñu biir moom motax mo beulé ñi wax mënu wax dem mais oustaz julli julli mooy mbokkam hadith yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi waxul ni murit murit mooy mbokk yonent bi waxul ni tiijaan tiijaan mooy mbokkam wala xaadar xaadaray mbokkam wala laayi laayi nay mbokkam dane al muminu aqul mumin jullit jullit mooy mbokkam mais ñun conflit d'intérêt ak kenn ku ne di sauvegarder say intérêt li koy dundal ak li koy doxal moo tax ñu ëpp ci ñun dañoo dëggule alquran wax ak li xadis wax buñu warona and xam hmm. nga lu hmm. koy yàqu saas. kenn ku ne sa intérêt bopp. Hmm. Eh, te intérêt général. dafa ëpp doole foofu intérêt personnel. dëgg la de te intérêt général boobu nag mooy dimbalante. loolu dafa mel ni pays européen yi moo ñoo ñu ko gën a dégg de. waaw mais oustaz. te ñoom duñu ay julli mais oustaz. dafa fekk ni seeni jëf. rabaa an mansuura. alquran moo ni. daanaka poussière la rek. ñoom mais léeg-léeg gis jullit boo xam ni dafay respecter rendez-vous dafay wax dëgg dafa ponctuel moroomu jullitam bu ko dee seedeel xam nga lu koy seedeel ah kii tubaab la waaw damay laaj est rendez-vous wax dëgg ponctuel jikkooy tubaab la wala jikkooy jullit la dëgg la wala sallallahu alayhi wa sallam waxoon. ayatul munaafiq. salaat salaat. li ngay xamee naafeq bi. pire pire. ñett la. bi ci njëkk izaa hadasa kaza. donte Muhammad la tudd. donte Ibrahima la tudd. donte xaali Ousmane la tudd. donte Ousmane la tudd bu fekkente ni bu waxee wax lu dul dëgg. taf ko ci naafeq. wa izaa waada axlafa. koo xam ni bu ngeen téye leen téye. nga am ci moom confiance mu war la uh-huh. yonent bi nee na jàppal naafiq uh-huh. wa ida tumina xaana koo xam ni saa yoo ko saa yoo amee ci moom confiance mu war la uh-huh. koo xam ne boo ko joxee deuxième koo xam ne boo ko joxee rendez-vous mu faussé ñett yooyu mooy mandarga naafiq mooy mandargay naafiq léegi contraire bi nag ku ko amee xanaa mooy mandarga yu jullit waaye déedéet ñun mandarga yu tubaab nañ ko def. kon de yi bëri na ci réew mi. Mhm. mbokk jullit ñu fàttali leen ni fa tabarakallah oustaz Xaali gay waaye di di rakk ci tafsir Abdourahmane Gaye macha allahu taala di doom ci. Euh, suñu maam xalifa gay moom lañu fi dalalal fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu ndimbal ba tey ñu ngi ci ndimbal yi parce que li ñuy def nii rek ndimbal la. Mhm. te yonent bi salaay salaam dañ ngeen ma ci sama diine ji donte benn aaya la wala est-ce que charia mënul ñëw nangoo fen ci benn cause fen dañ ni jullit du fen est-ce que doomu aadama soo ko leeree ni bu fenee rëccal bakkanam charia mën na nangu mu wax lu dul mais Oustaz charia dama bëgg nga xam ni euh, nu ma ko mën a waxee maanaam source la moo xamante ni dafay dafay dafay valoriser bakken dëgg la sharia du loo xam ne dafay indi problème. mais dafay résoudre problème. am benn at boo xam ne charia moo ko teg. te boo xóotalee dugg ba ca biir doo gis ni lu jariñ rek moo ci waral. dëgg la. ba nga ma laaj loo xam ne maam Cheikh Sidil Hadj Malick tontu na ko ci dajul xulub. maanaam wax lu dul dëgg. Mhm. ngir régler problème. Mhm. xam nga fu mu dagan. Mhm. bokk na ci ngir yéwénal ay diggante. maanaam fekk diggante boo xam ne boo ca waxee lu dul dëgg mu jat mais oustaz bu yàlla dogalee man ak yow suñuy kàddu juwaloo mut njaay mut jub njaay borom njariñ ni ànd ak grand sëriñ ñëw seet la ni la yow xaali gay ko defar nga ne leen ah ñu ne ñun de ci moom lañ waaye lu baax lu rafet li muy wax ci yow man daal jaaxal na ma daal di génne taysiir jox la ko ni la ñoom de moo ñu jox taysiir bii sax daal bu ñu la gisee jox la ko ngir jofeel am ci yow te gisuñu ma de dëgg la ñëw ci man mhm. ne ma yow Oustaz Ousmane mhm. loo ko defal jofeel gi mu am ci yow bi ñu ko gisee wax yu baax yu rafet yi mu la seedeel yëkkati xiraatu zar bu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick wala zajjurul xulub bu Serigne Touba jébbal ma ni ma oustaz Mbaye Kane moo la ko jox xam naa ni cofeel gu ma am coow moo ko waral. te pourtant gisuñu lañ. waaw oustaz man ak yow bu ñu gisantee. nan la ñuy def. cofeel gi day gën a dama lay bëgg a wan dëgg may bëgg a wan ngir lan li ñuy wax. wax la ko wax ma ko te li ñu wax du dëgg. waaye defar moo tax. macha allah. gis nga wax lu dul dëgg. foofu la ko sharia di nangoo. macha allah ñu xam ne rek diine xikma. lañ ciy demee udoo ila sabili rabbika bil xikmati fa tabarakallahu oustaz xam naa temps baa ngi xoj waaye ñu profitoo rek ñëw tuuti ci actualité dañoo gis benn buur da doon aji bi muy aji mu dem ba ci benn dëkk romb benn jigéen gis yor benn pittax ay céele yu dee mu jël ko di ko yóbbu buur bi fekk ànd nag caravane bu yaatu ànd ak ay ceeb ànd ak lu ne ànd ak mbooloo mu bari ak alal ju bari nee na ñu taxaw bu mu taxawee moo soxna si ni ko looy def fii ak àll bi lii foo ko jëmee mu ne ko ay weer a ngi nii ci lii la ñuy dund mm-hmm. buur bi daal ne li ñu indi woon ci dund nañ ko jël jox leen ko ñu yóbbu ko ci dëkk ba mm-hmm. ba mu defee lool fa tabaarakallaahu daal di gént fekk da doon aji de mm-hmm. ñu ni ko xajjan mabruuran wa saayan mashkuuran wa zanban maghfuran liggéey boobu mu def en tant que kilifa est-ce que yow amoo benn gis-gis boo xam ne président de la république bi nekk macha allah Macky Sall nekk ci réew mi social bi muy def nan nga ko gisee manqué na wala manqué wul oustaz gis nga bu ñu dellu woon ci social bi ñu suñu diine sant rek noppal Omar ibn Abdul Aziz moom la ñuy woowee xaamisul xulafa ginnaaw Babacar. Mm-hmm. Omar. Mm-hmm. maamaam mu Ousmane Ali ibn Abi Talib. Omar mm-hmm. ibn Abdul Aziz moom la ñuy wax xaamisul xulafa. gis nga jamono ci social. mu organise ñetteelu ponk lislam di azaka. ba réew mi mu nekk. Uh-huh. jaziratul arab amul kenn koo xamante ne di nga lekk azaka. koo ko jox daaw ren boo ko soogee mu ne la man ren damay génn waaye du ma jëm. est-ce que organisation islamique. te moom moomu. daan na toog xiif di ko bëgg a rey ba biir bi di kurkur yi waaye mu naan biiram xar xini mm-hmm. boppam lay waxal de mm-hmm. awlaatu xar xini mm-hmm. fa lam tazuqi taaman illa daqahu afxaru naas allahu akbar mu naan biiram boo kurkur yi lii nag président woo maire woo député woo ku ci nekk am nga ci dégg-dégg boo ci war a jàngi mu naan biiram boo kurkuree xarxiir yi mhm. aw laatu xarxiir yi wala boo kurkuriwul kurkuriwul fanaan mooy léeg-léeg nit bu xiifee biir danaan kur kur loolu lay waxal naan daan boo kurkuree ak boo kurkuriwul falan taduqi taaman doo mos benn pepp ñam ci réew mii mhm. illaa daaqahu afxaru naas lu dul ki gën a ñàkk ci réew mi dafa lekk ba rek allahu akbar est-ce que ñun suñuy dirigeant noonu la ñuy doxee <laughs> waaw bind mu rëy ngaw mbind mu rëy ngoo ci chef d'état loolu te loolu mm-hmm. mm-hmm. ki ko doon def ci jamono moo ëpp doole chef d'état mm-hmm. dama bëgg rek ñi ñuy dégg di ay dirigeant moo xam ci cadre religieux moo xam ci cadre administratif moo xam autorité étatique nañu jël wax bii rek jàng ci lu bëree bëri oustaz miinoon nañu bu ñuy waaj a fal élection maire wala présidentielle ñuy wër di defari casquette ak i t-shirt ak i pantalon di wër di ko tasaare ci seeni militant ngir lan carte bi leen di sànni. Mhm. fi jamono toll tey tem ndimbal bi gën a gàtt mooy masque bi jar cent franc est-ce gis nga ci ñoom kenn ku génn di may masque alors ah, nag maa ngi ciy profité di ci macha allah encouragé Pape Doumbia. macha allah mi ngi ciy def lu am solo. Mm-hmm. masque yeeg alcogel yeeg ceeb yeeg fa tabaarakallah bi Covid bi commencé ba léegi. mi ngi def social ñu ngi koy gërëm bu baax a mm-hmm. baax. di ko encouragé di ko ñaanal yàlla ci ci loolu macha allah taala lu am solo la waaye oustaz da ngaa joxe bind mu rëy nag. Mm-hmm. lii lañ lay doyee fa tabaarakallahu euh, mooy nga ñëw génne li nekk sa biir dënn taajal ko mbokk internet parce que lii ndimbal ëpp ko كونتان نان لول ما شاء الله أه لماي واخ رك موي لما قامت الحرير واخون لا تسال المرء من ابوه ورز حلاله ثم سله او فسرم كون دون لا لاج ياي كان كولا جور جارو كو صاح ما شاء الله تعالى نيت جور نا نيت تيغ يون ياو نا تيغ و يون ياغ تي يون بي ياغ تي كونفرنس ياغ تي ليب يالله يالله ماتال سا يون مسل تي ما شاء الله تعالى سا ليغي نيب من ما بوك تي ناو macha allahu taala ndax sëñ Cheikh dafa wax wax ju am solo dani xayaatun bila xilmin xayaatun zamima wa xilmun bila jeexin la kalaamun mu dayax nee na dund bu àndul ak xam-xam nee na amul solo dund gu sànku la waaye xam-xam bu personnalité lalul amul importance ñu gis ni macha allahu taala sa saxsiya noonu lay doxee yàlla na yàlla yokk la bu baax a baax boo doon tàggoo sa tàggatu bu mujj lan lay doon barakallah sant la oustaz gërëm la ñaanal la yàlla fa tabaarakallaahu ndax li nga wax lépp jëm ci ñun ci yow la ne te yaa ñu gën a xam fa tabaarakallaahu lii ñuy seede jëm ci yow wax li ci neex mooy yow mi ngi koy wax ki nga koy wax ak ñu koy dégg ñépp xam ni dëkk la waaye wax yow mi koy wax xam ni du dëgg ki ngay waxal xam ni li ngay wax du dëgg ñi lay déglu xam ni li ngay wax du dëkk loolu yàlla nañ ca yàlla musal amiin amiin fa tabaarakallaahu sant borom kër gi nga xam ni moo la may opportunité. Mhm. nga mën di dalal ay boroomi xam-xam. Mhm. fa tabaarakallaahu ñuy jàllale message yu ni mel. Mhm. à travers le monde ñëpp di ci jot sant fa tabaarakallaahu ñi nekk ci régie bi. suñu caméraman sant fa tabaarakallaahu soxna Adama. bi nga xamante ni moom it moo nekk ci technique bi. li tax ma jàpp tur bi nag moom ak sama Adama ñoo bokk tur. dëgg la sama tudd Adama. dëgg la ñu ko à travers euh, le meilleur ci. nu mu tudd ci émission bi. Mhm. nuyu fa tabaarakallaahu soxna Ndeye Aida moom it di suñu soxna. Mhm. nuyu suñu jigéen nga xam ne ci moom la ñu jógee. Mhm. ñëw ci émission bi madame Niass Ajaratu Khady mbay ñu ngi koy nuyu bu baax suñu jigéen macha allah nuyu fa dëkk fii ci wetu prestige. waaye bu ma fi génnee bari waa na du jaar ci moom de. waaye moom ay a émission. macha allah nuyu ko ziar ko. macha allah nuyu mbooleem soppeek mm. doon suñu mujj daje. macha allah madame ñu koy nuyu bu baax a baax di kontaan. macha allah moom ku mën social la moom it. Mm-hmm, mm-hmm. madame ñas yàlla yàlla gën ko dëgëral gën ko yokk kon mbokk jullit mu ngi noonu. Mm-hmm. suñu soppe la woon oustaz Xaali Gaye du gan ci kër gi nag parce que kër gi Thiès dafa yaatu. te li fi nekk ci ay ulama bari nañu kon jaadu na ngeen ñëw fii di ànd ak ñun di ñu mottali fa tabaarakallaahu dama naan bëri na nit ku taxaw di wax ñu ko raw ñu ngi foofu toog di ko mm-hmm. seetaan mm-hmm. kon boroom xam-xam warul iñaan mm-hmm. laa taxaasa diw la yonent bi wax te iñaan dama gis seen cheikh wax ni mbaamu ki ñaan bañ ko sëfee ca kër sëriñ si la wàcc loolu nag dañuy ñaan yàlla ba bum ñu dal fii sa kër la incha allah di nga toog yeneen i plateau yoo xam ne yu gën a am lay doon parce que yow kër gi dañ lay tiitaroo oustaz dañ lay tiitaroo ci xam-xam